mu sa jay ba gëmloo ni ni am nga doole bu kenn amul rek rey nañ la gis nga nguur kenn moomu ko yàlla rek a ko moom te dafa am bakkan day jeex ñii la wër dar la naan la troisième mandat di la bàkk ak yu demee noonu ñu ci bëri ci ñoom ñu ngi àndoon ak président Ablaye Wade di xeex contre toi te bis boo fi jógee ngay xam ni ñooy ay jaam jéggal leen ma ci terme bi dañoo bëgg nga delloo sa xel lañu la yéene ñun mooy nga pare dem toog ni say morom président Issoufou mi ngi Niger kenn sonalu ko président Buhari ak président Obasanjo kenn kenn ñi ngi fii Nigéria Jerry Rawlings nekk na Ghana ba ni mu génnee àdduna keneen ak keneen noonu waxuma sax déw tubaab yi fii laa wax ci Afrique lañ la yéene mooy nga génn dem toog jàpp sa ñàmbur di dox say soxla wala su dee da ngay dem ci international nga dem waaye yéenewuñu la mujj bi nga xam ne ñooñu moom lañu bëgg si yow ndax munoo gagné combat bi devant le peuple sénégalais te plus ñu lay dugal plus sa situation de grave parce que bu dee da ngaa dox ci ay néew pour génn wala pour essayer force toog ci réew mi xamal ni sa mujj dina métti lool dina jafe lool te yéenewuñ la ko ki la gëmloo ni ñun da nit ñi dañ laa jàppal dara bëgg laa fexeel wala di fay di waajal ay fayu ñun amuñu jot boobu xam nga ñun dañoo jàng ci yonent bi alayhi salaam jàng ci nit ñu baax ñi li ñu jàng mooy lan bu xeex nooteel jotee kenn gënuñoo dëgër kenn dàquñoo xeex bu bañ jotee kenn dàquñoo xeex bu xeex ngir dëkk jotee kenn dàquñoo xeex waaye bu ñu demee ba jekku la yenent bi defoon keroog bi mu ubbee màkka ñun loolu lañu gëm parce que ku ñu jox réew danga war a jublu ci liggéey danga war a jublu ci tabax ak defar waaye xëy su bu ngoon jot di wër kan laay tëj kaso bokk na ci li tardel Sénégal ba fi mu toll nii kon na nga delloo si sa xel xam ni ala kulli xaal nguur gi la yàlla doxoon jeex na seetkat bu la neen nguur gi des na nax na la bu xaabu bu la ko wax nax na la ku la ko munti wax nax na la politiciens yi la wër di la gëmloo naan la deuxième quinquennat ñu ngi lay nax kenn ci ñoom gëmul loolu la ca des nag mooy daa fu fu réew di toll dafa am fu mbir di toll kii mu concerné mu war a jël responsabilité am faire preuve de grandeur loolu rek lañu suwete ci yow souhaité ko ci sa njaboot asalaamaaleykum